asalaamualeykum internet seen Média TV yi ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen wax ngeen wéy di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawoon fawoon bu leen koy fàtte gars yi dee leen koy aimé bu baax a baax a baax Tacnet fi mu toll nii dafa ñëw pour xeex ak lépp loo xamante ne si gunóor la buy yàq muy ay janax muy ay kaña lépp lu leen ci sonal ngeen yor tool usine ngeen ne ci kër yi magasin wala bërëb bu mënti doon boo leen jokkoog Tecnet mu jaay leen produit yoo xamante ne sii mooy lijjanti problème mu gunóor yeeg kaña yeeg janax yi ñoom nag Tecnet gannaaw bu ñu la jaayee produit yi am na pompe yi nga xamante ne sii moom ngay euh, mën a utiliser pour jëfandikoo produit yooyu pompe yi nag bërëb bi nu mënti toll am nañu pompe yu ko mën a pompe pompe yi bari nañu loo leen ci soxla ci quantité mën nañ leen koo jaay comme tamit produit yi dañuy jaay en dañuy jaay tamit en détail produit agricole yi ñu ngi fii produit phytosanitaire yi ñu ngi fii produit droguerie yi tamit ñoo ngi fii tag na nag ña nga nekk ca Grand Yoff ba ci masque yi tamit fàttewuñ ko comme ni ngeen koy gisee nii façon bu ne am nan ko te ay masque yu mucc ayib la ñoom Tacnet ku bëgg a jokkoo ñoom seen numéro mooy 77 341 57 59 wala 77 250 54 24 wala 76 282 02 01. technicien portugais bi nga xamante ne si mooy Amorim ci saison bi c'est la première fois mu joué match championnat gañewul loolu ca Premier League ba la loolu ca Angleterre la loolu ca banc bu Manchester United la moom nag ren ci saison bi foofu ca Sporting match yu mu joué yëpp daf koo dóor. mu ñëw nag ci Premier League bi deux minutes la joué daal di lakk caax yi ma posté naan Amorim ñëw na lii xeeñ neex na mais gars yi nes tuut ñi nga xamante ne si ñooy waa Ipswich daal di égaliser gars yi naan ma seen média defal ndànk lay pombiteer du Angleterre boobu ñuy wax du ci wax jooju de ci fii la dan ni luy Angleterre du Portugal luy Premier League ba nekkul championnat bu Espagne bu bu Portugal ba li nekk tamit Manchester United nekkul Sporting fi mu toll nii Amorim ñëw na ñëw na ci kër goo xamante ni si këru góorgóorlu la bu tayee mu dox bu tayee mu neex bu subaa mu taxaw bu subaa mu naqari Manchester United loolu la ñuy dundee mu wute nag ak fa mu jógee mu nekk Sporting ba nga xam da doon jàpp club yi mu doon dajeel di leen dóor ban tëdd ak assassin boobu nga xamante ne si mooy Gyökeres nga xam moom moo moom bii moom moo ko doon res mais gars yi Amorim dafa ñëw nii euh, match nul moom la ubbee. mu nekk nag loo xamante ne si miinu ko but bi nga xamante ne si United dugal na ko ci deuxième minute bi Rashford moo ko dugal mais gars yi gannaaw gi Hutchinson bii bi nga xamante ne si daf koy dóor mu dugg o oh gars yi bii bu rëy na pied gauche dafa tourner rek enchaîné André naa dafa naawa naawa naaw ba bëgg a dee tiir tir bi c'était un tir imparable mi ngi noonu gars yi ci noonu la ñii di waa euh, Ipswich Town égalisé Amorim nag bi match bi jeexee nee na ay joueur am ñu dem nuyu supporters yi tàccu leen mu ne nag moom système bi nga xam moom la indi pour identité moom nee na faaw ñuy jël ay risques mu ni parce que moom li muy joué nii bu ñu jëlul ay risques déwén ci position bi nekk ni ak ci jafe-jafe yi ne nii ñoom Manchester United foofu la leen di fekkaat mu ni moom jeu dafa laaj ay risques pour identité de jeu am daal mën a taxaw mi ngi noonu gars yi moom. Amorim risque lay jël loo yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk foofu ca Manchester United mais gars yi kiy buur di bummi ci Premier League bi fi mu toll nii leer na moo ngi nii toog jàpp tranquillam mu nekk entraîneur bi nga xam mooy na Slot moom boole wu wax ak jàpp dóor jàpp dóor ba gis ngeen tey ni nga xamante ne si noonu la def ba Southampton Southampton nag gars yi jéemoon naa dëggal boppam mais digganteem ak Liverpool la woon mënul woon yomb Liverpool ñoo ubbi score bi Dominic Szoboszlai moom moo dugal moom Zob ci trentième minute bi mu ubbi score bi mais gars yi gannaaw gi Armstrong day dóor penalty pelanti bi nag ñii ñi ngi naan pelanti la ñii ñi ngi naan du penalty ñii naan ci biir surface bi la ñii naan du ci biir surface bi mais arbitre bi euh, penalty la tiré quarante deuxième minute Armstrong mooy dóor penalty bi mais Kelleher daf koy jàpp mais jàpp bi daf koy yàbb ci kanam Armstrong bi nga xamante ne si day ñëw dolliwaat mu daal di nekk égalisation tey Kelleher boobu match bu rëy la defati ci camp Liverpool yi ci noonu gars bi ñu yegee ci cinquante neuvième minute bi Armstrong boobu mooy passe Fernandez mu daal di dugal la deuxième bi gars yi Southampton daal di mëne. soixante cinquième minute Mohamed Salah moom mooy dugal bii boo xamante ne si Gravenberch moo koy paas sala ñëw rek ak pied gauche bi mel na kuy wàcca bal bi ci noonu la ko dóoraalee mu nekk égalisation gars yi Mohamed Salah boobu quatre-vingt-troisième minute mooy teg penalty daal di koy transformé mu nekk 3 buts à 2. pour Liverpool Salah nag gars yi match yi nga xamante ne si joué na ko à l'extérieur ak Liverpool Salah dugal na ci lu tolloog 100 buts noo gars yi Salah vrai machine la. vrai machine la moom Mohamed Salah fi mu toll nii nag gars yi écart bi comme ni ngeen ko gisee nii Arne Slot creusé na ko ci lu toll ci huit points gars yi Premier bi nekkatul ay caaxaan de huit points actuellement la Arne Slot creusé euh, ci digganteem ak ay njoñam. Arna Slot nag gars yi amagum na lu tolloog 31 points comme ni ngeen ko gisee nii ci bopp classement bi ci 36 possible mu daal ci am 31 lu mel ni amul benn entraîneur du Liverpool du City du équipe bu mu mënti doon du Arsenal du équipe bu mu mënta doon foofu ca Premier ba bu mos a def tàmbali bu bu ni mel sur point points possible say premier match nga am ci 31 points Arne Slot ñoom ak waa Liverpool ñoom ñoo ko njëkk def. mu nekk nag gars yi jaloore boo xamante ne sii moom Arne Slot mi ngi koy def ci banc bu Liverpool bi. Liverpool boobu nag gars yi comme ni ngeen ko xamee moom moo nekk ci kaw bopp classement bi Liverpool am nañu 31 points voilà 31 points lañ am ñi nga xamante ne sii ñoom ñoo nekk Manchester City jël deuxième am 23 points. troisième bi Chelsea la 22 points la ñu am quatrième bi Arsenal la ñoom 22 points la ñu am lii gars moom moo nekk euh, Big Four bi mu nekk classement bu Premier League anglaise bi euh, ci tàmbali bi actuellement gars yi Liverpool moo jiitu actuellement Liverpool moo sànni karawaas gannaaw ban jongante douzième journée bu dee foofu ci Espagne ñi nga xamante ne si ñooy Real Madrid sans forcer. dem nañu fekk ñi nga xamante ne si ñooy Leganés voilà defal leen bagage dóor leen lu tolloog 3 buts à mu nekk nag match boo xamante ni si gis nañu capitaine bu bees bi wala mu nekk Fede Valverde ci côté droit ba la football ñu gis kii di Ceballos titulaire la Arda Güler tamit titulaire la Real maîtrise de match bi daa di gagné 3 buts à Real boobu nag gars yi tey ñi nga xamante ne si ñooy waa Leganés agressivité lan doon football contre ñoom. dàll dóor ñuy daanu mais gars yi teewul Real Madrid da ciy ne ba Real noonu lay dóoree lu tollu ci 3 buts à 0 ki nga xamante ne si mooy Kylian Mbappé moo dugal ci 43e avant ñuy dem ci mi bi donte mbir mi dëgëroon na mais Vini da koy wut wut ko wutaat ko fi mu koy amee jàkkaarloo camp yi ñëpp foog Vini day dóor Vinicius xoolu sax camp yi mi ngi xool Mbappé moom war a paas noo gars yi fii Vini il a été très très très généreux ceebu jagal a yekkal kii di Kylian am bu ko neexoon dóoran ah, mais da ko ni am kilaan Mbappé ñëw laal mu daal di dugg mu nekk bit bu rëy ñu dem mi ñëw coup franc boo xamante ne si ñetti joueurs yi waroon bal bi laal nan ko Arda Güler moo koy taajal Fede Valverde ci yaalu góol bi ci poqataanu kan yi foofu la jaare la bal bi ras boo xamante ne si bu saf-sàpp la bim mu daw daal di jubilé jubile boo xamante ne si jubile jubile capitaine dëgg la jubile boo xamante ne si bu ànd ak arne la moom Fede Valverde mais gars yi gannaaw gi Bellingham bal bu ñuy door mu dem dal ci poté bi ñëw Bellingham mbëkk ko mu daal di dellu voilà mu dell ci biir camp yi mu daal di ubbeeku mu nekk 3 buts à 0 pour Real Madrid bi nga xamante ne si gannaaw bam mu gagné fi mu toll nii gars yi classement bi changé na. voilà mu nekk classement bu Liga espagnol bi Atlético de Madrid moo newoon ci deuxième place bi Atlético wàcc na Barça ñoom catalan yi ñoo ne ci kaw 34 points la ñu am. Real jël deuxième am 30 points Real am na un match de moins parce que war naa jouer ak Valence troisième bi Atlético de Madrid la 29 points Villarreal bu Pape Alassane Gueye ñoom 25 points am ñoom Villarreal ñoo ne ci quatrième place bi euh, tey ñoom danoo euh, match nul Osasuna moo leen mën a woon deux mais gars yi Villarreal dafa xeex a xeex a xeex a xeex ba daal di égaliser ñoom Pape Gueye Tembo def deux bi partout comme ni ngeen ko xamee. Pape Alassane Gueye moom nag mi la terrain sénégalais bi moom nekkul woon ci feuille de match bi Pape Gueye xam ngeen ak équipe nationale bu Sénégal dafa amoon gaañu gaañu Pape Gueye joué wul ñoo ngi koy souhaité prompt rétablissement gaynde gi nga xamante ne si nag moom moo di Alassane comme ni ma leen ko waxee moom Alassane Diaté bi nga xam ca Kër Madior la nekkoon moom tey convoqué nañ ko pour la première fois moom milieu terrain bu 19 ans bi mais ci banc bi la toog ba ni match bi jeexee duggul Villarreal fekk Osasuna ñu tembo ci lu toll ci deux buts partout.